Papa Sow nee na Papa Sow nee parcelle Papa Sow nee na mënoo daan mbëru parcelle ndax yéen ñëpp xamante ngeen. moom Papa Sow bu ñëwee ma ko. kii ko jox 500000 mu bëre ci Garga 2. nga ñëw léegi. ah nga ñëw man jox ko 500000 léegi. nga ñëw léegi fii ci kër mu ñëw ko jox ko 500000 ay seconde laa koy daan bi ma daan boobu maa ngi fubal nawet daan Papa Sow. ah Papa Sow bi ma daan maa ngi fubal nawet daan moom ak Moussa teel a géej ñu leen fooyee boobu dugub ma sax ci làmb maa ngi gën nekk xale saa yi boo ko téye dafa lay fooyee. mais dama mu ne mënoo daan Garga 2 ndax Garga 2 yéen a bokkoon benn équipe te mënoo woon am ci moom rëpp. Garga 2 may nekk roog énergie. waaw ah boobu moom mi ci ci fooy man maa ci luur yi. waaw boobu la mais lan moo moom na noppi may nekk roog boobu moom nekk fa. Garga 2 man maa koy mbalak nii rek neexal mais Garga xam na ni Zarko magam la te duñu mos a bëre man ak moom. mais lan moo tax moom lan moo tax avance am di bëre. guddi yi ñu toll moo tax. non mais c'est parce que nag c'est normal man kuy laa kenn ku mag laa yow tamit da ngay laajte ñoom lu ñu bëgg ci àddina lu dul xoolal éliminer Zarko la ñu bëgg mais mënuñu ko wala njaago bi nag tukulóor bi da ngay laajte. mais dama gis ne dama gis ne dama gis ne nga wax rek ñëpp ñu jëfur di yu wa mais gis nga ay ñoom Balla Diouf nee na xamoon li wax ay ñoom Balla Gaye di wax. seen papa tax nag. kan dama koy daan ci ay secondes xam nga muur moom muur du ko téye palam palamee ko mais man dama koy caw mu daaw ba pare ma daan ko. mais mais mais. oh. sama yaram daaw a de. sama yaram daaw a tey de. Papa Sow ba mu génn ci contrat ba pare mu jël Zarko bu dee moom li muy wax dëgg la na jël Zarko après. bi paree li ñu war a wax dinañ ko wax ñu lu war ñu nekk ci ñu nekk bu ñu paree dinañ ci wax. gars yi Zarko gars yi Zarko song na Garga 2 nee na 500 bi sax buñ ko fay bu bëreeg moom mais Babacar Babacar Zarko lan moo tax mu ñëw ci Garga bu ñu ko joxee bu bëreeg moom ci combat bi yàqu. waaw Zarko ak Garga 2 combat la. ah. loolu dafa jaadu. Zarko ak Garga 2 bu lamb ji promoteur dañoo war a dem taxawal Zarko ak Garga 2 parce que Garga 2 wala boog Zarko boobu ba tey mu ngi cof waaw waa parcelle. waaw mais loolu ma jaaxal Babacar. waaw non xam nga moo tax. day liggéey lamb xaalis la su xaritoog waa parcelle du bëre kii potentiel adversaire am la la mu seqoon ak Modou ñoo ko ci lamb tey moo doon ngi koyam Zarko ngi Grand Yoff kii a ngi parcelle fanam dama ne bu lamb ji xam nga tey. ma Garga 2 lu mën a xew loxoom des na ko yëkkati waaye bu loolu pare laa ne man su ma doon promoteur ma jël sama xaalis fay Garga 2 fay Zarko taxawal combat bi boo demee parcelle waa parcelle duñ ko bay. tey loolu Babacar duñ ko bay. tey loolu Babacar. combat la de. Garga 2 ak Zarko combat la. ah mais Zarko nee na parcelle yëpp kenn mënu ko cee daan. Zarko déggoo li ma la. nee na parcelle yëpp kenn mënu koo daan. Zarko moom waa parcelle loolu dafa neex. loolu daa neex. loolu lamb da war derbi. Ah! loolu loolu derbi la fanam. derbi daa war ci lamb. xam nga nag rayon ak parcelle tool. <laughs> ñaar ñu digaloo ay tool nag ah yàlla saw nit daal ñu la Zarko yabee métti na ma ñu la Zarko yabee métti na ma état bii nga nekk Zarko di la yab métti na ma dana koo na ku eh, fay eh, 500000 mu bëre eh, Zarko nee na ku fay 500000 mu bëre jaww. a wax Zarko nee na ku fay 500000 mu bëre jaww. dañ koy duma dañ koy boo eh eh Zarko ngay dëkku ah nee na 500000 mu bëreeg yow nee gisul ci yow loo lu ko ma eh eh. eh Zarko nee gisul ci yow lu ko 500000 sax nee na bu ko joxoon bële ko. léegi nag dafa promoteur yi taxawal. nee na lan dafa promoteur yi taxawal. Zarko dafa mel ni eh eh eh dafa mel ni Zarko yi eh eh Zarko yëngal na fi de. Zarko yëngal na fi de. Zarko nga de. ñu gëjee bëre yaa ngi bëre maa ngi bëre na. wax waxal tëral waaw mais loolu combat la maa ko a souligné maa njëkk a souligné Garga 2 ak ay xale nañu mais la moo tax Zarko ku fay mu bëri ak yéen lambam la yoonu lambam la yoonu lambam la mën nañu bëri ñoom ñaar mën naa daan Zarko dégg ma li nga wax Garga mën naa daan Zarko yoonu lamb daal li ma la mën wax yoonu ko teg xool